amoon nañ ci ci jotaay bi ñu mujj def ñeenti aaye mooy in huwa illa wahyu yuuxa ñu war a jël juróomeelu aaya mu cinquième verset ci seen saar ci suratu najm bi subhanahu ba mu nee yonent bi wa ma bi du waxe bànneexu bakkanam daf ci teg ni in huwa illa lu mu wax rek lu ñu ko wax loola waaw lu ñu ko dee la ni ko wax ko moo tax mu am sañ-sañu génne ko kan moo ko def loolu mu ne allamahu shadidul quwa nee na jàngal na ko alquran ji ki ko doon indil ci ndigalu suñu boroom nee na boroom kattan ku am ku tar ji kattan la muy jibril jibril alayhi salaam wax jooju nag dafa jar a jàngat shadidul quwa léegi yan preuve lañu ñu mën a indi ci ni jibril borom kàttan dëgg la woon ma jox la ci ñaar ba ñett mooy dëkk bee di nit dëkk yonent yàlla luut ba ñu nekkee ci ak ngóor jigéen mu te ñu tere leen ñu bañ yàlla ba mu ko yebalee dafa yëkkati dëkk dëkk ba rek dëpp ko xam nga ni loolu ko amul kàttan du ko man yëkkati am réew yëkkati ba ba mu yëkkati ko complètement nga wëlbati ko nee na loolu de wane na doole nee na boo demee ci ñooñ aad wala waa samood benn yuux la fa yuuxu de la fa xew-xew fa kon wax dëgg yàlla wane na ni borom kàttan la diggante bi muy yóbboo mission yi maanaam yàlla ni ko jamal ci sama yonent bi nga yónnee ko yóbbee ko mbir gaawaayu gaawaayam bi li muy def rek wane na ni borom kàttan la moo tax mu ni la allamahu shadidul quwa fii nag mbokk yi ci saar bi fu jafe la ci explication mooy lan wax ji day duggante yenn saa yi da nga jibril la yenn saa yi ngeen ni borom bi la waaye maa ngi leen di bàyyiloo xel ci saar bi fu mu nee la maa rek bàyyil xel ca kàddu googu muy wax loolu dama koy laytaaye waxta wax ci rek ba saar bi di jeex foofu fi déggee maa rek bàyyil xel li ne ci biir maa jooju mu ni kon zu mirratin fastawa kii nga xamante ni moo ko indil lii de borom xel mu ràññeeku la woon borom kattan la woon ci doole waaye borom taar la woon fastawa yemul ci loolu waaye ku yemoo la ci bindam maanaam boo ko gisee rek dang koy sopp nee naan bu daan ñëw ci yonent bi salaatu wasalaam daan na ñëwee ci jëmmu dixyatul kalbi dixya doonoon koo xamante ni ñëpp dañoo d'accordoon ni dafa amub taar nee na daan na ñëwee ci jëmmam ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax daan na ñëw saxaaba yi duñ ko gis gis sax danañu jàpp yi ni xëy na dixyaa nekk ci seen biir rek mu ñëw lijjanteeg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba dem mais daal jëmmi nit la daan ñëwee moo tax Omar ibnul Xataab nettali ñu ko ci xadisam boobu istala alayna jooju mu ne ba ñu toogee yonent bi alayhi salaatu wasalaam di rek jékki-jékki benn waay ñëw rafet lool yére yi mu sol set bindam rafet ñun daal mais xamuñu ko daal te gisuñu coono ci moom gisuñu dara expliqué fekk di jibril alayhi salaam lay wax mu ni kon yàlla mayoon na ko taar mayoon na ko mu doon ku yemoo waaye mayoon na ko xel muy nàcc bu baax bare xel mu yànj lool waaye mayoon na ko kàttan loolu yàlla defaloon na ko kon zu mirratin dinañ ko firee boroomu xel mu ñaw dinañ ko firee boroomum kàttan dinañ ko firee boroomum taar te mu fassiru day fastawaa mu yemoo nag yemoo fastaqarra jibril ala suratihi alxaqiqiya noonu la daan ñëwale yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon nit rek bu simple di wax ak yonent bi waaye nee naa am na bis boo xamante ni nag sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ko man nag dama bëgg tey nga won ma sa melokaan bi nga mel dëgg dëgg dëgg ma gis la ah Pape Samba sa soppe bi de keroog am na problème Jibril da daan ñëw ci moom mun ko tey de dama bëgg nga won ma sa jëmm maanaam bul ñëw li nga daan ñëwee nii rek doon nga wan ma daal yow noo mel yow Jibril loolu laa bëgg a xam waaye ba Jibril tàllaloo ca kanamam de da koy séen ba ca yu kawe gis ni jëmm ji daal fees na léppam mu ni kon wa huwa bil ufuqil aala nee na day dem ba ca kaw as mu koy séen ba ca kaw asamaan sa xool peng fu mu ko xool rek mu fees ko boo boo demee ci Abdullahi Ibnu Abbas da wax ni la al ufuqul aala mooy matla shams fa jant ba di fenke xaasin ni kaana jibril yaati rasulullah fii suratil adam yi nee na jibril da daan ñëwal yonent bi ci ci melokaanu nitam nee na bis yonent bi ni ko dama bëgg nga won ma sa jëmm jëla yàlla binde nee na mu won ko ko ñaar yoon nag la benn bi fii ci kaw suuf la beneen ba ca asamaan la ci seen yoon boobu seen voyage boobu nee bii nag nga xam ne ci àdduna la woon moom euh, fa bil ufuqil aala waaw mu ngi nekk ca penku ba waaye kawe lool boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ci e, xaaru xira waaye daal ba jibril tàllalee laa fam ya mu xool penku xool soowu amul maanaam amatul lu muy gis ndax lépp jibril la nee na yonent bi dafa xëm bi mu xëmee ndeysaan jibril jibril jibril yëkkatiwaat ko waaw poussière baag pënd ba ca kaw yëpp mu fëggalaat ko ko delluwaat doon nit mu mën a nekk ak moom loolu dafa yéeme da ngay gis parce que euh, da dañoo jege yoo rek moo tax mu sañ ko wax lool waaye am na ñu ko sañul de euh, gis nga da ñëw ci kër Pape Samba gis fa benn xaj bu mag a mag a mag ñu ne chien méchant xaj yu garaaw waaye nga gis xale xale bu ne ci kër gi xale bu ñetti at di fo di nekk ci xaj bi xaj bi di dàqanteeg moom. gaynde gu ndaw da nga ko daan da nga ko gaynde da nga daan gis ñu tàgg ñu ñu tàggat ko muy géej nga gis ko muy faw ak nit loolu lépp dafa fekk kooku miin ko doonte la wóorul nag ndax mbiri xaj moom <laughs> samba dafa doy waar de yoo xam ne day saa yoo xam ne xaja baadoo la dama ci am benn anecdote bu yéeme ma ànd ak sama benn xarit ñu am fu ñu doon dem bi ñëwee moom kër ga moom boo naan koŋ rek xaj bi yuuxu na te nag mënuñu foo na bañ a dugg nag ndax dañ fa amoon soxla lool a ah. léegi yaay ñëw ña ca kër ga moom mooy li gën a noppale rek li yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax waa ji naan ko boo doon dox ci mbedd ab xaj di la topp di la sonal nooy def mu ne ko dama koy sànni damay xëpp dama koy xëpp suuf mu ko waaw boo ko xëppee suuf mu ñëwaat bu dee yonent bi ko wax wala nettali bu ñuy nettalil mun koo ma xëppaat ko suuf mun ko gër xëppaat ko suuf mu ñëwaat mun ko ma continuer xëpp mun ko de am na lu ko gën a noppale da nga naan xaj bi sëñ bi ñëwal takk sa xaj bi wala jëla sa xaj bi rek bu jeex yooyu dootu la ca fekk waaye ñun daal ah waa kër gi def loolu ñu mën a dugg ñoom ba ñu defee loolu ndekete ñoom dañoo dàq xaj bi rek waaye dàq ba soriwul ñu toog ñun ci salle d'attente bi war a xaar ki ñuy war a recevoir ci diggante bi sama xarit ba ma àndal di julli man maa ngi ci biir moom mu ngi ci bunt bi di julli ma jékki-jékki gis xaj bi taxaw ci ginnaaw ah sëñ bi lii ma la mën a digal daal mooy sa julli gi fii mu yem bu yeboo nga yemale ko fa noonu nga toogee di taaye mën ko fi xeel ba bul sëlmal xamal ni xaj baa ngi sa ginnaaw boo fi jéemee ne nekk di jéem koo rukooti ak di jëg taxaw ba mu jàpp ni dafa am looy jéem du baax ci yow daal man ko nii nga toogee yow daal toogal man ko man moo awma problème ndax man jege naa buntu ki ñuy war a seet bu fi naree def dara man damay dugg ca biir feer génn man ko yow daal waa ji daal sama waa ji Pape Samba moom daal musuma gis taay bu yàggee noonu <laughs> man ko moo gën a wóor et pourtant de jaaxle giñ ci jaaxle xale bu ndaw ci kër ga bu ñëwoon da koy xëcc mu dem ñiineel gëla lu ma jublu foofu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moom dafa miinante woon ak jibril ba sañ koo wax loolu waaye ay ñun dañoo ñemee naan jibril wan ñu sa laaf ak wan ñu sa lii moo tax jibril bi mu xamee ni waayam ji nag xëm na ba ximmali ko mu fëggal ko poussière bi woon ci kanamam nee na keroog summa danaa nee na dafa jege si fata dallaa dem nag ba sës rëkk nag ci jege bi ba léegi nag kàddu yii ñuy wax nii yii ci mufassiruuna yi ñenn ñi dañuy wax ni Jibril moo ko moom ndax boo ay waxam la wax wa huwa bil ufuqil a'la allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla ah. muy jege rek di jege si lool nji ñi moomal kàddu gi Jibril mooy muy jege si yonent bi alayhi salaam ñëw ci melokaadu nit waaye gën a gën a yokk nag jege bi danaa jege na fatadalla yokku na mu jege woon nii ma tooge maa ngi jàkkaarloog sama technicien muy euh, Pape Samba muy sama man am naa espace ak moom su ma jógoon uti ko dama koy gën a jege lu ma gën a puus ca moom gën a jege caméra ba damay gën a dama koy gën a jege jibril def nag loolu yonent bi alayhi salaam mu ne fa kaana xaaba xawsayni aw adnaa dafa mel ni xala ak xocc loolu boo ko bëggee xam ni mu ko jegee gis nga boo daan buñ daan defar euh, ma indi rek euh, tuq si ngalam wala buñ daan defar euh, riit yi wala lu mën a gis nga wala flèche yi daan boo daan defar arc yooyu pour am flèche da ngay jël bant bi nga nga nga dëngal ko ba mu dëngal nga am ñaari côté ñaari côté yooyu fu ci nekk dangay takk fii takk fee gis nga diggante boobu ni mu jege yoo nee na yonent beeg jibril jege yoon nañ jege bu raw loolu jege yoo loolu lañ def léegi li lay wan ne la saar bi dafa garaw ba léegi maa ngi jàpp di man jibril lay wax mu ñëw ba foofu rek ni la fa awxa ila abdihi ma awxa kon bu la waxee fa kaana qaaba ni aw adnaa jege na lool ba mel ni xala ak xoj ci ni ñu jege yoo dem ba mu nekk ni la wala sax lu ko gën a jege lool lool lool mel ni buum ji ñu takk ak ci li ñu ko takk noonu mu jege yoowee wala ñaari cat yooyu noonu ñu dende jege yoo lool nee na aw àdduna walla sax lu ko gën a jege mu ni fa awxa foofu nag dafa mel ni génnaat na nag ci waxi Jibril ñëw ci waxi suñu borom mooy boo tax ñi ñi ñii jàpp ni su ma danaa fatadallaa ji mooy ba yonent bi di dem ca boroomam mu lay wax ni mu jegee yàlla ak jege ga ni mu ëppee ba wax la ni la ni ni mu dende ba jox la ko ci misaal bi mu ni foo ba ba amee nag fa awxa ila abdihi ma awxa mu wax yu jaamam balam ko wax yu moom waxatul waxi jibril ndax yonent bi du jaamub jibril yonent bi jaamub yàlla la yàlla mu ne nag fa awxaa wax yu na ilaa abdihi ca jaamam ba maa awxaa la mu ko wax yu la mu ko wax am jibril la moom wax ji mooy lan fa awxaa jibril ilaa abdillahi fa awxaa mu wax moom ma jibril ilaa abdillahi ci jaamub yàlla bi maa waxaa lam ko lam lam ko waxi kon dafa doy waar mu ni waaye xamal ni maa kadabal fuaadu maa raa nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam day xolam weddiwul la bëtam gis yenn saa yi nga gis dara ba si àgg sa xol naan déedéet loolu lii non lii moom du dëgg man gëw ko maanaam dañ ma dompaat ma xool est-ce géntu ma <laughs> waaye moom maa kadabal fuaadu maa raa nee na moom de li nga xamante ni moom la xol ba gis la la bët ya gis xol ba weddiwu ko ibnu mas'ud nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gis na jibril ci gisin bu doy waar ci juróom benn téeméeri laafam ya bu ci nekk rek muur na ab gox muur na fu baree faree baree baree bare waaw dem ba daanaka dangay gis rek ba doo amati foo gis waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal lii moom gis na ko mu leer nañ ñi ci bëtam mun waaw léegi nag ki gis ba mu leer na ko ni moo gis mu ñëw nettali la ngeen ko déedéet yow gisoo xam nga nag loolu nag day indi problème koo xam moom wóor na ko ni gis na gis na yenn saa yi nit jékki gis dara wax ñu ko yow sawaay yow da ngay génti rek moom man damay bëgg a job li kii kii diw romb na fii fekk ne yow yaa ko gisul waaye moom gis na ko xëy gis bee gaaw rek waaye moom xam na ni li mu naan gis na ko gis na ko léegi nag yàlla ne waaw afatumaaruunahu moo ndax da ngeen di dàggeeg moom wala da ngeen di weddeeg moom ala maa yaraa ci li mu gis nag nit ki gis ngeen ko doo gisoo fi <clears throat> gisoo mun lool lay laaj ndax léegi da yéen koo bëgg werante yéen waa Quraysh ca la mu gis ci laylatul isra wal mi'raj la mu gis ci asamaani juróom-ñaari la mu gis ca baytil maqdis la mu gis ci digganteem ak jibril boroomam la fa xew lool moom def ko dund ngeen bëgg ni ko nag déedéet loolu du dëgg yéen nag est-ce que jotul ngeen xalaat nag jëfandikoo seen xel yi mu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee indil waa Quraysh wax jii nii dañ ko weddi ni ko demoo sax Jérusalem baytul maqdis sax demoo fa parce que nag li tax nag euh, ñu weddi ko it nag Pape Samba nat nit ku nit ku naturel war na man a weddi loolu parce que bu fekkente ni yow Pape Samba yaa ngi dem Fuuta yenn saa yi nga dem fa ñëw wala yenn saa yi nga dem fu gën a sori foofu ñëw jóge Dakar xam nga bu baax boo jógee dakaar gii jëm Fuuta ñaata heure ngay def wala ma jox la fu gën a sori ñu ni kat coupe de coupe am na nga ànd yàkkande ngeen dem ci benn réew demal Afrique du Sud xam nga heure ba lu muy doon wala demal Mozambique xam nga lu la jox ci heure wala demal Rwanda xam nga lu mu la jox ci xam nga ñaata heure la ko avion bi naaw pour ngeen mën a yegg foofu euh, ma ñëw ne la Pape Samba eh sa waa euh, du demoon nga ban dëkk nga demoon Pape Samba waay Égypte Pape Samba demoon nga Égypte ngeen ma waaw dem nañ fa ñoo gars yi keroog kay def nañu quatre heures wala cinq heures wala six heures de vol man la par exemple man foofu dem naa fa biig ba ñëw man da nga mii man man oustaz mii daf maa yàpp wala moom lan mooy problème am ce que xam na man li li lan la ma war a manquer respect rek ba ñëw naan ma Égypte fo fa ma demoon ak xam la xam la ma xam nga ma xam ak ni avion gaawee ak heure ya ñu def moom mu naan ma dem na fa biig ñëw sérieux yow it oustaz bal yi ngay fawe gars yëpp problème bi ñu am mooy fi yonent bi ni dem na fa ñoom dañ ko daan def trois mois lañ daan def maanaam un mois quinze jours aller un mois quinze jours retour muy trois mois yonent bi nag nee man bii dem naa fa ba ñëw awaa ah, yow lii nag est-ce que dina yomba rek nga bàyyi ko noonu waaye nag xamuñu nii moom li muy wax daf ko leer parce que moo tax bañu bañu bañ ko weddee moom laa la wax la keroog non seulement di nañ ko Aboubacar gëm ko moom ba gëm ko ci lu gën a sori loolu dañ ko doon laaj sax ay tegtal waaw léegi d'accord am am problème dem nga ñun amoon nañ jégg gu njégg gu demoon fu mu toll maanaam suñu caravane gi caravane bi mun leen romb naa leen fii ak fii ak fii ñi ñi ko yor diw ak diw ak diw gis naa ca gilleem gu mel nii gilleem gu mel nii gu mel nii tel jour dina yegg si tel heure lañ fi yegg ñu ne léegi jeex na doon soo yàlla doon jaay wax ju rek léegi kay weddi gis bokku ci nañ ko xaar waaye ba loolu amee yëpp dañ ne day jibar kii dafay xel mee yeewu rek muy jéem a naxaate nii yàlla ni wala qad raahu gisaat na sax jibril nazratan uxra beneen wàccuwaay feneen gis na fa jibril maanaam gis na ko beneen gis fan mu ne inda sidratil muntaha ci gane nañ garabu déem la goo xamante ni mu nga mu dafa sës waaw mu nga ca asamaani juróom-ñaar dend ak aras nee na yonent bi foofu it gisaat na fa jibril ci seen voyage boobu gis na ko ci jëmmam ja jibril tàllal laa yu rëy yooyu waaw waaw nee na loolu nag mu ngi féete ci suufam ay dexa fa de mu ngi féete ci ndey jooru aras la nekk tudd nañ ko sidratul muntaha ndax kat fa la kenn kenn koo jéggi de foofu mooy garab gi sës rëkk mooy sidratul muntaha boo ci yegsee rek sës nga amatoo benn pexe nee na yegsi na foofu nga xam ni malaaka yi sax bu ñu ba foofu dañuy taxaw mbindeef yëpp a fay taxaw la nekk ca ginnaaw sidratul muntaha yàlla rek ko xam yonent bi nettali na ko ca xadisam ba ca al isra wal miraj na yóbbu nañ ma ba sa asamaani juróom-ñaar yékkati ma ba ma dem ba ca sidratul muntaha si der garab la goo xamante ni ba xob ya ca ne feuille ya feuille ya dafa mel ni noppi éléphant ci rëy ñay nena na noonu la nopp noonu la xob ya nekk foofu ca garab googu mel nee na yóbbu nañ ko ba foofu moom yonent bi nee na indaha nekk na foofe foofee jannatul mawa ajjana yi jannatul mawa bi ngay dégg nga xam ni fa la ruu shuhada u yéeg ñi ragal yàlla di nekk nee na foofu la ne na is yaxsha muur na assidrata maa yaxsha waxoon naa leen maa yi ci nekk yëpp garaw fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa nee na yàlla wax na jaamam ba lam ko wax yu la nag loolu moom moom moog jaamam baa ko xam yàlla ak yonentam ñoo xam loolu bu ni is yaxsha muur na assidrata garab gii di assidratul munta maa yaxsha la ko muur maanaam la fay ñëw fees dell macha allah xasan nee na euh, leeru borom bi muur na ko macha allah nee nañu malaaka ya fay rot si ak seen bari waay muur nañ ko macha allah la fay wàcc daal bari na lool ci sidratul muntaha waaw ci ndigalu borom bi rek nee na nag kenn mënu koo melal yonent ci xadisam ba mu wax ni munu muntaha taar bi nekk foofu ci béréb yooyu nee na kenn mënu la wax ba wax la ko ni mel nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam mufassiruna yi nee ñu gis na garab googu waaye gis ni sàbbaal gi ñuy sàbbaal borom bi ak leeru borom bi moo ko muur ba kenn dootul mën a gis garab gi nee na gis na fa malaaka yi fees fa dell ba mel ni ay picc li fa jaamu borom bi ñoom ñëpp macha allah ñii di wax subhanallah ñii di wax alhamdulillah ñii di wax allahu akbar fees fa dell dell dell comme ni nit gi di war kaaba gi fii yonent bi aleyhi salaatu ba tey ni la gis naa ko de moom sidratul muntaha ay li ko wër mel ni ay mel ni or ma gis ci xob bu nekk nag benn malaaka taxaw fa nekk fa di sàbbaal boroomam nee na nag lii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gis na ko leer na nee foofa nag jannatul ma waa fa la ne lii mu la wax yépp nag mu ni la yonent bi ba mu toogee foofu ma zaaxal basaru wa maa taxa nee na bi jéngalul xoolam ëppalul ci xoolam cëy moo correct suñu borom nee xool na wa xool na waayam ji waay daal kii maa am yar moo tax daan wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi man yàlla moo ma yar moo tax maa gën a yaru ku dul man yàlla nee na xool boo basar wa maa taxa moom de jéngalul bëtam ci luñ ko war a xooloo te xoolu ko waaye ëppalul it ci xoolam loolu euh, tegtal bu rëy la ëppalul ci ni mu doon xoole moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw waxuñu ko xoolal mu nekk fa di def nii ak def nii déedéet waaye waxuñu ko yamal ci lii mu naan xaaral ma xool la ca ginnaaw caméra ba lan moo fa ne déedéet moom fi ñu koy yamloo rek la yem maa zaagal basar wa maa taxa loolu nag moo jafe ci gan léegi ba sàmm ba ñu bëggee yàq nit ñi si lañ naan ah gan moom lu ne lañ ko mën a tere ba mu des xool ak nettali gan looy wëddi xool ak looy nettali ku bawul xool bu rëy doo ci nettali bu rëy koo xam ne fan la fekk yow boo boo am na ñoo xam ne bu ñëwoon sa kër nga teg leen ci saal bi dong xam nga gan gu ñëw toog di nga génn ni naa ko may ndox wala naa ko jëndali boisson waaye gis nga diggante boobu nii la ñuy def sa di photographier sa saal bi fii sa waay xool ko fii de moom daa wow koŋ xam naa booba jekkagul <laughs> xaalis sa mën a soppi nit xool ko léegi ni mel bi mu yoree waaye gis nga kii mu ngi wowoon koŋ mel ni ku dëkk Éthiopie maanaam dinañ lépp lépp lu nekk sa saal dinañ ko dinañ ko xam bu ne ah waaye benn fauteuil yam ba dinam ñëw ci sa lépp la ñuy ñëw parce que yamale wuñu seen bët gan gu correct nag du def loolu léegi nag boobawul nag lu ne nga xool ko ci saalu jàmbur ak kër jàmbur soo fa jógee doo mën a noppi ndax da nettali nettali yonent bi nag moom mësul mel noonu maa zaagal basaru ma tax yàlla ni laqad raa gis na min ayati rabbihi al kubra ci aayay borom yu màgg yi moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam gis na fa yu ko yéem a yéem a yéem a yéem ko fa guddi googu muy laylatul isra wal gis na fa lu yéem yàlla wax na ko sax li nuriyahu min ayatina ci gis na fa yu yéemee yéemee yéeme waaw laqad raa min ayati rabbihi al gis na fa yu ko yéem yu yu màgg ci kéemaanu borom yu màgg yi nee gis na ko foofa kéemaanu boroom yu màgg yi yàlla wan na ko fa yu yéeme yéeme yéeme ci yoon woon na ci yem doon nettali nit ñamu doon romb ñii nga xamante ni dañ leen di fitnaal ñi nga xam dañ leen di mbugal ñi nga xam ne leen ko yóbbi mooy làmmiñ wu nu yoroon ñi nga xam ni mooy yàlla doon mooy ñi nga xam kenn ku ci nekk yëm dal li mu gis ci ay kéemaani boroomam moom sallallahu alayhi wa sallam ci tukkeem bii nee na la mu cee gis mënu ko koo sax nettali ndax bari laqad raa min ayaati rabbihi al-kubra yàlla <laughs> neen daal gis na fa lool ay mbiri boroomam yu ko yéem lool ci al isra wal mi'raj waaw ñi mu romb seen làmm yi ñu leen koy laxas ci xadis yu daw yaram yooyu du ma sax ñëw bala ñu naan commencé ti na waaw naa bàyyi yooyu yëpp daal waaye daal gis na yu ko yéem a yéem a yéem ci asamaani juróom-ñaar foo ci nekk ba fa jaaree yonent ba mu fa taseel la ci xew kéemaan yi ko yàlla defal gis bi mu gis gisanteeg boroomam ca ña indi loola macha allah ak julli ya ko boromam jox Moussa di ko wàññiloo ma muy juróomi julli ya xew daal lépp kéemaan la ba ca sidratul muntaha yooyu yëpp gis na ko yàlla nee na loolu lépp nag maa ko ko wan man moom boroom ci kéemaani boromam yu mag yi kon foofu lay tëjee wax jooju foofu lay tëjee waxi al isra wal mi'raj su ñëwee nag war a ñëw ci yéefar yeeg seen jaamu xërëm yi yàlla ñu yàlla defal dégg yàlla ñu yàlla defal topp yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ni suñ dégloo waxtaan seen la ci ëpp njariñ ñu jariñoo ko waaye daan ngeen xam ne tey ñëw nañu ba ci aaya 18 ci seen saar bii di suratu najm aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh